waxtaan ak yow rek ci gis bi nga def ci déclaration bi wax kaa ngi jëmale ko ci islam waaw alhamdulilah euh, maa ngi lay fay nuyoo di nuyu lay seetaan ci biir mi ak ci bitim réew euh, àdduna day dafa am ñoo xam ni dafa mel ni xamaguñ li xew xamaguñ li xew mooy ku dëkk ci àdduna ba noppi di réere cër bi ci yonent mooy yàlla Muhammad am dañu yaakaaroon ni nit ku ne ci àdduna si lu sa xam-xam gàtt-gàtt lu sa gëstu gàtt gàt lu sa relation gàtt-gàtt nga xam cër bi ci yonent yàlla Muhammad am kon bi mbir mi xewee daaw jéeg fa la yem wala daaw fa la yem kon bi jàngalekat bi duggee école am di jàngal xale yi bàyyi fa lépp naan xale yi koo ci yaakaar ni li may bëgg a def mën na laa déranger mën ngaa génn classe bi di ko xale yi xale yi toog nga bëgg leen wan seen kilifa seen bàyyi maanaam seen bàyyi liñ gëm ba jeex ci tàkk nga bëgg wan xale yi euh, sañ-sañu loolu la neex def bëgg koo jaare ci kooku loolu ku nit du ko def la ci tege mooy boo ko defee ñu àkk la na ministre ba dàq loolu moo gën lu yomb li ñu dàq waa ji buñ ko dàqu ci ñu aj koy fan waaye moo ko sañ moo koy def beneen dana ko defaat lii rek lay jur kon muy Macron muy kenn muy keneen nit gëm-gëmam dañ ko koy sàmmal day may jàmm sàmmal nit gëm-gëmam day may jàmm ndax am na ñoo xam ne yu leen yonent bi leen gënal seen bopp koo xam ne kii boo ko défendre faatu aljana nga jëm te ñun ñëpp aljana lañ bëgg dem loolu kenn du ko def nit kon muy moom muy keneen yu mel ni daa war dakk ci àdduna si daa war dakk ñu xam kenn ku ci nekk la nga gëm lan lay tekki indo gee ñu muñ faaree nag indo gii tey kenn ñu ma faaree nag déedéet lu tax parce que nagee lañ gëm ñu bàyyi leen seen gëm-gëm yooyu léegi dañu song suñu gëm-gëm yi lii rek moo ciy mujj jërëjëf sa laaj bu am solo bi. taxawaayu lislaam. mooy benn reeteet ko bañ ko dànkaafu ko déglu kilifa yi nag buñ nañu boycotté leen li France am ñu boycotté lépp. lu ñu ci suñu kilifa wax rek <laughs> ñu doxal loola jullite noonu lay doxe kon lii rek lañ ci am incha allah ci taxawaay. waaw euh, cakaara ji de moom du noonu lu mel nii bu xewee nga ne ci réew moo xam ne mii téeméer bu ne juróom ñeent fukki ak juróom. kiñ tooñ mooy seen sëriñ ñoom ñëpp jaadu na nga yëkkati kàdduna ne bàyyi li ngeen def li jaaduwul lo ma yoon wu njëkk wa dañ koy boole ak yoon wi jërëjëf. waaw oustaz gis nañ ne ñi ñi ñun réew am na ñi jotoon jóg ne li Macron def ni du yoon ñu teg leen loxo ñu mel ni ñoom xarit bu mu xaar ñu mel noonu réew mi pour yéen lu mel ni am ay xale jóg ne du yoon ñu teg leen loxo en tant que islamologue yéen gis loolu loolu lu jaadu la ñoom ña génn def lu jaadu la génn wane ne tooñ nañ suñu sëriñ loolu lu jaadu la ña ñëw ne leen dañuy bañ tribulé am fi nangam nangam xëy na loolu lu jaadu la xay na nag laa wax waaye daal képp koo xam ne kii nekk nga ci réew mi ñu tooñ sa sëriñ bu tal ni sallallahu alayhi wa sallam war ngaa wane man sañ ngaa wane ne lii kat mer naa ci ndax lu nekk gaa yaa ngi koy mer ci mbedd mi lu ne gaa yaa ngi koy mer te kenn meru fi nag lu ëpp mbaa raw moom mii alayhi salaatu salaam liñ ko li liñ koy teg ndax xam nga tubaab bi gisul yonent Yàlla Muhammad amul fotom amul fotom gisu ko lu tax ñuy jël seen loxo bëgg a lu leen neex ni kii la lu koy wax dëgg yàlla am tooñ rek la am de ñoom gisuñu ko teguñ ko bët gisuñ koo gis léegi rëdd aw rëdd wu doy waar takkal koy bomb wala def ko ñu leen neex daal ne mi ngi nii loolu mën naa déranger ab jul mën na ko yëngal waxuma yonentu yàlla Muhammad mais bàyyi jàmbur sax war su ko def noonu am de suñu suñu politiciens yi nga xam ne ñoo jiite yëfeeg yooyu kuñ ci caricature woon yenn yenn caricature yi rek say mbokk mer jóg def euh, manifester wala ñuy wax nangam wala sa bopp ñu la bu mu amati rawatina kii nga xam ne moo nu gënal suñuy baay gënal nu suñu yaay gënal nu suñu sëriñ gënal nu suñu bopp gënal nu suñu bopp léegi ku mel noonu ku ci wax war nga di seet di seetantal kon kilifa gu toll ni Macron ma del siwaat yi war na buy def ci yu nii mu xam ne yonent bi dafa am gaay te it ma wax ne dàqoon jàngalekat bi mu gën a yomb lii ko dal te nag àdduna si yëpp ñii mbubboo wala boog ñii wuyoo yontaal Muhammad mer nañ ci li mu def jërëjëf. Euh, li nga wax c'est tellement vrai que ñoom seen drapeau dong Karim Xrum-Xax làkk nit ñu mer ci téye te ñoom li ñu def ni ci lislaam xam nañ ni mbooloo mu mu mu ñu tooñ ëpp na ban dagg nga ci def. waaw moom wax naa sànq ne mbir dañ koy pesé waroon nañ xam ne yonent Yàlla Muhammad lu gàtt-gàtt bu amul milliard am na téeméeri téeméeri téeméeri millions yi ñoo xam ne moom rek lañ yaakaar moom lañuy ñu nooyee ñu ñëw ba ci gàmm gi ñëpp yi gàmm di ko wane ñu ba ko wane ci façon bi loolu bu ñu ci lakk drapeau sax sant waaye nag euh, mbir mi daal mu noonu ñun daal fi ne noo ngi naqarlu liñ def di ko méttitlu di xaar suñu kilifa lan lañ ci wax ñu jóg def loola incha allah jërëjëf. pour ma jël pour dernière question bi gis nañ ne li mi tar tar yëpp gis nañ réew yi mel ni Arabie Saoudite ba léegi waxuñu ci officiellement réew moo xamante ne Arabie Saoudite jullit yëpp gëm ko tey lii am ñu ne tekk war war naa war naa waaw xay xam nga àdduna it. ñëpp duñ bokk di faje mer ni ñuy mere àdduna buñ jàpp mukk ne ñëpp war a bokk nu ñu faje mer ñoom mën nañoo faje mer noo xam ne julli gi ñu jëm muy julli fajar mën nañ caa faj seen mer mii yëpp te mooy bu ñuy xunóot ñoom mën nañ loolu mën nañu bu ñu taraawee def ko ca donc ñun mën nañoo génn di manifester di lakk ay drapeau def nangam mais ñoom mën nañ ko def ci seen ñaan ndax seen xunóot moo gën a garaaw suñ suñ def yi def waaw donc bu ñu leen raxal ñu moom génn ñu nangam ak nangam kenn ku ne rek ni ngay tojee bopp janax tooñ nañ yonent bi alayhi salaam ni ko feneen di yëge la ko mag koy yëge ni ko ma Madina yëge la ko feneen di yëge waaye mënuñoo bokk ñun ñëpp nag nu ñuy faje mer mi loolu rek mooy yëf yi man jàpp na jàpp naa ne fajar gi ñu jëm ak fajar gi ñu wees sa geneen fajar ñoom mën nañ ci def la nga xam ne moom lañ bëgg def lépp loolu mu ngi tudd xunóot buñ julee seen ñaar rakkay suba rukkoo ba nag muy siggee loolu mën nañ ko wax seetaan naa ci léegi benn vidéo boo xam ne bi ñoom noonu lu ñuy def million nit mbaa lu ko jege tase nañu di di wax ne yàlla noo ngi lay ñaan nga fayul sa yonent bi mi ngi ci audio yi mu ngi ci mu ngi ci vidéo yi loolu am na solo jërëjëf